anniversaire happy birthday to you bés du tuuti zena boram borom yawa yawa bravo waaw lii rafet na lii rafet na macha Zeynab lii lii rëy na trop trop trop mais sa mérite rek la la say mbokk defal macha allah c'est très c'est beau c'est beau. tey na gis nañ soxna Zeynab jooy tey macha allah mais sa mérite la ah say mbokk suñu ne nit baax na ñu ne ay mbokkam ñoo ko wax. waaw waaw mais nag tey nag. tey nag fa nga fa nga jóg ci place boobu Oustaz Makhtar ñëw toog fa. ndax tey mom <laughs> ñu dem dellu bravo waaw waaw waaw bravo. ñu dem dellu si. waaw ñu dem dellu si mu gën. d'accord. ah soxna Zeyna borom bis bi euh, ñu ngi lay ziar di la sargalaat bu baax a baax ci sa anniversaire bi di la wax ne ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire bu baax man sa rakk sa xarit Sophia maa ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire ndax soxna Zeynab man mën naa ne nekkatoo koo xam ne nii rek euh, télé moo ñu boole mais sœur nga ci man yaay nga ci man confidente nga ci man ndax man sama idool nga te sama référence nga te defe naa ne li may wax nii. ñi may déglu xam nañ li may wax ndax lu ma wax sax dama naan soxna Zeynab nee na nangam kon loolu moo am ma lay ñaanalaat yàlla bu baax a baax a baax lii nga xamante ne bi moom lañ la dénk muy xale yooyu nga xam ñoo nekk sa sa biir kër nga yor leen ci daara ji sa liggéey yàlla na ko yàlla gën a barkelaat bu baax a baax ba nga am ci loo xam ne yaakaaroo ko sa doom yi yàlla na leen yàlla barkeel ndax loolu la képp kuy julli di ñaan ñuy ñaan aussi yal na la yàlla yokk yokk bu baax a baax a baax ci sa liggéey ndax ñun dañ lay dañ lay tiitaroo di la safoo te dañ la soxla ci suñu kanam ndax référence yu mel na yow dañ ko soxla ci suñu kanam ñun ñun jeunesse bi. Yaa Seyda moom ni ma ko faral di wooyee dañ koy ñaanal bu baax gudd fan bu ànd ak wér xéwal gu yaatu wërsëg bu baree bari ndax nag dañoo bokk kër gi. ci ban xamante ba tey daan ko diglu naka jekk faf émission ndénkaan ñëw ñu bokk liggéey bi macha allah rafet la def ni mu koy taxawee rafet na macha allah ci xam-xam bi ci dal gi ak dégg communication ak macha allah tamit li ñu wax euh, fasaaxa gi la fa am solo ci liggéey moo tax daal anniversaire bi dañ koy ñaanal mu doon anniversaire bu neex bu bari ay xéewal lës ci ak dundam lépp gën a barkeel tegu ci tawfeex ak liggéey ak jaamu yàlla ni ko baaxoo waxee di wax ñu nag euh, moom ci DTV macha allah wax dëgg yàlla émission ndénkaan bi nga xam ne ñu koy taxawee rafet na lool la muy taxawee tam ca Dunia rajo moom it macha allah. maanaam daal tout le temps ñu jot ay yóbbante sax yu jóge ci askan yu jëm ci moom ñii di safoo liggéey bi ñii di ko le kon koy wax ni ko daal lii mu nekk nii na ko ci continuer ne ci continuer ndax euh, mi ngi ci yoon bu baax yi macha allah. bés bu dellu si moo neex macha allah ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér dina ñaanal yokkute man bi ma xamante ak yow ba tey damay yokk dama dolleeku parce que tout simplement sa disponibilité sa teey sa dal sa waxtaan ak sa bokk nangu bokk loolu daf dafa am solo. donc ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire euh, soxna Zeynab Faal Njaga Yaaram ñu ngi lay ñaanal nga dund dund dund dund dund ba doyal njaboot bi barkeel ah liggéey bi barkeel et waaw ndax macha allah daal ñun daal suñu xel dal na ci yow suñu xool sedd na ci yow te ñoo ngi lay ñaanal. soxna Zeynab juste que damay wax ni du soxna Zeynab bu DTV euh, du soxna Zeynab bu nii bu Escaf soxna Zeynab bu àdduna bi yëpp la. soxna Zeynab ñëpp ko bëgg ñëpp la si xel jaamu ni mu mel si télé bi noonu la mel bu génnee euh, bu nekkee si bureau bi aussi soxna Zeynab du si gis a xool nit euh, li ñu wax mooy macha allah macha allah duñ koy ñaanal. ñaanal rek suñu borom bàyyi ko suñu kanam ba mu yàgg lool lool lool lool lool bon zéro faute daal li ñu li ñu war a li ñu mën a wax si moom bëri na dañ koy ñaanal rek. voilà soxna Zeynab moom wax ci moom dina nag loo xamante ni dina yomb waaye tamit dina jafe ndax dama ko xam de loin avant ma koy jege. ci benn parce que dama yor sama way juru jigéen boo xam ne daf ko sopp lool sax avant ma koy dajeeg moom ba mu ñëwee ba mu yëg ni liggéey nag mu ne ma ah. góorgóorlu sa jigéen bi nekk foofu nag moom ngay fexe ba di def wala ngay amal taxawaay yoo xamante ni du kenn du la dut daraam nekk na ko xamante tey na dal na bu baax li muy def ñëpp sopp ko mu amul noon mën naa jàpp que ni euh, bu fekkee ci suuf kenn mën na cee nekk amul noon soxna euh, amul noonu soxna Zeyna moom mun nañ ko lim que ni warul am noon ci li ma jàpp ndax. liggéey bi xamante ni daf koy def di ko def ci askan wi yeete bi nga xam ne daf koy def nekk na loo xam ne lu am ma gis ko nag mu boole ñaari mbir l'utile à l'agréable mu koy boole di kaf di ree terewul lépp mu def ko rek teg ko ci teg ko ci diine mu nekk loo xam ne dafa am solo loolu tax bés bi nga xamante ni nag euh, mu delsiwaat ci moom mu doon am lu am solo ñu bëggoon ko ñaanal yal na yàlla yokk xam-xam bi yokk wér-wér bi yokk mën-mën bi surtout nag xam-xam bi gën a sax dàkk ndax askan wi ñoom ñoo ci jariñu rawatina ñu ñi nga xamante ni nag dañoo nekk ay ndaw di liggéey ak moom xam na nañ ni tamit que ni ndaw la sax waaye am na ndaw yoo xamante ni sunu borom dina def ci ñoom loo xamante ni soo leen gisee tey jii dinga jàpp ni que ni ñi ay mag la lool loolu daal nekk na lu am solo te ñaan yi ma koy ñaanal dama ko bëggoon a def ci sama làkk bi nga xamante ni nag mooy sama làkk bi ma gën a maîtriser ma ko bëggoon a rek nii ko yo allah yow bes da yo allah yow jaggiran yo new nu yàlla jut bal yaa sayda soxna Zeynab soxna Zeynab Fall ñun weltimaanu ma nu féewi hay yal na la yàlla jàppale yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk xam-xam bi yokk wér-wér bi yokk xam-xam bi nga yàgg cee jariñ nag askan wi yàgg cee jariñ yàgg liggéey ak ñun di ñu gindi di ñu won yoon wi ñuy jaar yaa baax waa DTV di ko wax yaa bari ngor nan xool si ñi la jàpp yaa baax waral sa coono kenn du la dab naan la ana li nga leboon fayal ndax la ca maam sëtu koy jël te yow la ca baaxalal la kon bi asmillaahi sëy na soxna Fall ñu wax ci yow te jéem a leeral li ñuy wax ci si yow ngir def ko gàttaay mooy li jar a xam moo tax ñu bëgg a jëkk tosaare ko Seynab Fall nee na bëggul bon bëggul iñaan bëggul réew loolu lislaam tere na ko doomi gar mi day ñeme jam-jam jam nañ la nga taxaw dàq nañ la te dawoo ñii ne woon du ko mën ñii ne woon di ko def sikkim demati na dënn Seynab Fall noonu ya sa ngém nañu jàmbaar jaa jàmbaaru jom jaa ngi nii gaa yi nee leen soxna Seynab Fall ku dégg loolu nag tax ngay tëb di dal si kawam ba tubaab bi jàpp la dugal la ci mball gi ba mball gi mbalaale la boo déggee yuuxu bu kenn soxna Zeynab moo tooñ bu roccee lu mu rocc day yem ni pakk pakk gën koy ñaas ngar mi day am jom fit wa dëgër mu ñeme jam-jam jàmbaar du jommi si àll ndax fit waaye jéem lu mu sànni dina ko jom soxna Seynab Fall lu mu sànni dina ko jam jàmbaar mooy kiy takk nit ñi buum ci seen baat wala mooy kiy war fasam fëgg dënnam tanaan ko wax ma tàggale sa bopp ak sa baat wala mooy kiy mel ni soxna Seyna Fall takk ndigam ba mu dëgër kër gi réew mi dëkk bëgg dégg kenn koy jàmbat son soxna Seyda soxna Seyna Fall waa DTV ñu ngi lay gërëm di la sant di la souhaiter joyeux anniversaire jërëjëf euh, euh, ci éléments yu am solo yooyu noonu la euh, Seyda Deynab li ñuy njëkk a wax mooy massawu la damay faral di def ci anniversaire damay massawu ndax dafa am loo ñàkk ci sa dund muy at ku ne ñàkk na at nag waaye at ma nga ñàkk am na loo cay rëccu ci jëf safaanu waaye seydaa Seyda Zeynab am nañ xel mu dal ci li mu ñàkk muy at mi liggéeyal na ci diine liggéeyal na ci alquran loo xam ne nii su ko xalaatee wala ñi ko xam xalaat ko duñu tiit ci at mi mu ñàkk dañu ñaan yàlla nga amaat at yu bare bari yu la dese gannaaw biñ la mastawoo ci at mi nga ñàkk ñu ndokkeel la man lu gàtt rek laa ci wax ubbee ko mooy bokk na ci li ma gën a frappé ci seydaa day Zeynab mooy benn kàddu gu muy faral di wax ku laal diine jot ma ku laal diine jot ma bari na jàmm mën naa maslaha xajoo naak ñépp waaye nag bés boo ñëwee wokku diine wala nga def lu jalgati diine dana taxaw nag def face ak yow loolu noonu le lu ma bàyyi xel ci kàddoom la te lu muy dundee la dana maslaha waaye nag diine ji moom du ci def mu daahana li ñaan naxante di yàq diine ngir defar àdduna du ko def loolu mën nañ ko ko seedeel te jëmm yàlla ji rekk tax ak leneen loo xam ne li des ci temps bi yëpp mënoon naa nekk man jël parole bi di wax ci Sayda Zeynab ci mbaaxam ci yiwam ci yaram mais ci njubam waa ci njubam ci tegu ci yoonu siraatal mustaqim ak li nga xam ne moom lañ ñi doon waxtaane muy kàddu fonk gu mu ko fonk lum la dig dana la ko jox bu ne la danaa ñëw dana ñëw bu ne la danaa def dana def te li muy wax ci rajo beeg télé bi di waaraate du bokk euh, dana day dëppoog la muy dundee nit ñi xam ko ci moom nekkul sondeel boo xam ne nii dafay leeral nit ñi di lakk boppam loolu mën nañ ko koo seedeel te jëmm yàlla ji rekk tax mhm. yal yàlla yàggal laak euh, monsieur Samba Sarr yàggal laak sa yaay say mag ak say rakk ak sa soppe yi mm. dañuy ñëw rek ci soppe yi te image su soppe yi boo ko xoolee rek doy na nga xam liggéeyu Seyda Zeynab ay junney jigéen muuru nañu te mi ngi jaaree ci moom Fama Diankha présenté wul euh, ci gàttal lan ngay euh, témoin ci Seyda Zeynab ci bisam bii asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziyaar yéen ñëpp di leen wàccee seen wàccuwaay Oustaz Makhtar ziar dama koy dëxañ rek teg ko ci sa loxo nga jottalil ma ko ñëpp. Mm-hmm. mère Thiam Louise ak ñëpp. Zeynab maa ngi lay souhaité joyeux anniversaire man maay Fama Dianka. Mm-hmm. di soldat ci Zeynab Fall. Mm-hmm. Zeynab man dama fay représenté tey waa jamaatu ansaaru diini ci turu maam Fatou Mbengue. amoon na yéene ñëw nag ba biig rek bi ñuy waxtaan nee na ma lu ma jàpp dinaa ko bàyyi ñëw ba keroog muy ñàkk a antu mais sama yéene mooy teew foofu su ngeen ma gisul ngeen teewal ma ñun ñëpp moom lañ fi teewal Zeynab ci rajo lañ ko xamee ak ci télé. ñoo ko njëkk a wax ni bëgg naa la waaye wallahi mënatuñu koo dam oustaz Makhtar man Zeynab dama ko wóolu à 200 pour cent wóolu naa ko ci sama der wóolu naa ko ci samay kàddu wóolu naa ko ci euh, relation bu ñu boole ñun ñaar su ma tëddee damay nelaw ba yandoor ngir moom mii. damay wax ni Zeynab Fall benn miracle la bu yàlla wàccee fii ci àdduna ma di ko ñaanal yal na ko yàlla lafal cat te muccal ko ci Iblis. su ma koy ñaanal nag damay kontaan ci ñi ma bokk ak plateau bi mère Thiama sama complice Mayta. ñoom Louise ak ñi nga xamante bi ni keroog ba ma solee sama daal dem ci ñoom dañ ma koo nangul macha allah looluy firnde na Zéna Fall ñëpp ko bëgg. Mm. du ma wax lépp nag. damay cof tuuti rek li ci des ma bàyyeeg waa àddina. Mm. ndax géej la ku doon tànq fii ba suba doo jeexal. d'accord joxal keneen waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah ku jël rek nga présenté wu balaa ngaa wax li nga bëgg a wax. Mm, jëlal beneen micro bi beneen bi. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. man la Ndeye Rama Fall di rek si maa leen di nuyu di leen ziar yi ñëpp Mère Thiam Oustaz Makhtar Sarr. jërëjëf nuy Louise nuyu naa leen. ziar mm-hmm. naa leen bu wér a wér. jégal micro bi tuuti. waaw Zeynab nag di sama mag di sës si man rek wax dëgg yàlla di sama magu xol ma bëgg ko trop euh, dëgg yàlla mu nekk ku baax ku bëgg mbokkam dinaa jooy de mais li ma bëgg a wax dinaa ko wax. Mm-hmm. te Zeynab baaxam man mun ma ko sax wax. nekk na koo xamante ne ni dafa santir ay mbokkam. Mm-hmm. bari ay soppe de mais nekkul sàmba àllaar wax dëgg yàlla li li ko war si ay mbokkam mi ngi koy def day def sax loo xam ne waru ko wax dëgg yàlla du ay bëtam yi moo tax mu nekk ku baax ku ma sentir bëgguma lu ko naqari lu ko nar a dal moom Zeynab yàlla na ma dal man man moom a gënal ndax lu ko metti moom metti ma may waxal nag famille bi yëpp ñëpp ko gërëm famille bi yëpp ñëpp ko bëgg kenn jéppiwu ko wax dëgg yàlla li ma bëgg a wax si moom ak li ma sentir si moom lépp sax man mënuma kaa wax. Mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan ak wér. Mm-hmm. Zeynab bul ragal dala ñoo ngi sa ginnaaw lépp loo ragal doo ko gis incha allah. Mm-hmm. ndaxte li la war ngay def bëgg nga say mbokk say waajur gërëm nañ la sa waajur ba làqu gërëm na la ba làqu sa waajur bi fi des gërëm na la ba tey ji say mbokk yëpp gërëm nañ la macha allah laf cat. yal na la yàlla muccal si cat. ak làmmiñ loolu rek lañ lay ñaanal. dañoo fier si yow. man fi ma dëkk damaa fier si Zeynab. képp ko xam ni rakkam laa danga may fonk teg ma ca kaw te li li ko sa Makhtar waxee sànq rek Zeynab moom dafa bëgg ñëpp moo tax ñëpp a ko bëgg mm. amul noonu pour man mm. ndax man fa ma dëkk ku gis danga androog Zeynab Fall xanaa rakkam nga ma ne la waaw nga ne kooku dama ka bëgg sama biir xol kon amul noonu macha allah yàlla na ko yàlla la lafal cat mm-hmm. jërëjëf jërëjëf Fall euh, rakku Seyda Zeynab la ñu bokk ndey ak baay Euh, wax na kàddu gu am solo mooy euh, du samba àllaar mm-hmm. ni ko jàmbur yi gërëmee la ko ay mbokkam gërëmee muy lu am solo nga jox keneen moom it mu présenté wu euh, indi ay témoin am ci Seyda Deynab asalaamaaleykum mm-hmm. mm-hmm. man maa ngi tudd Aïcha Fall di jabar ci soxna Zeynab sama borom kër moo topp ci moom waaw man damay wax ni yaay sax laay wax parce que man bu ma jógee Njaasaan ñu muur ma këram laa wàcc moom li ma wax xam naa war na ko fàtte waaye man fàttewu ma ko yaay teg ma foo xam bu ma toogee si kër ga ba tey moom yàlla ak moom la moom moo tax ma toog fa mhm. mën naa ne sama borom kër euh, lii la ma ëpp can la ma ëppalee ci moom wallaay lazim bu dul loolu amul lu mu dul def ci man guddil na ma bëccëgal na ma seen bu lu nekk lu nekk lu nit di xalaat ci àdduna rek man mën naa ne Zeynab Fall defal na ma ko su ma demee Tivaouane nga ma dëkk bu ma nee Zeynab Fall ñëpp taxaw yépp foofu kooku foo xam ne dañ koy gis man leen dama koy gis waaye di ko gis nag ci gis bu rafet macha allah di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan bàyyi ko si kanamu njabootam gi yàlla barkeel liggéeyam lu baax li muy def si àdduna bi ñëpp teg nañ ci seen bët yàlla na la cat seexlu yàlla na nga mucc ne mbaam xuux mujjee ci tab mujjee ci tabaski yow yaay yàlla na nga mucc ku la xaar yàlla na xaaddi yàlla na nga dund ba avant yàlla rapidement dama téye fekkere dem jeex yaay yàlla gudd fan amiin yaa rabbal alamin jërëjëf témoignage am na solo mu jox keneen Euh, témoignage yi am na solo bu ma toogee suma sëy ba léegi sëy daa doy na ba tax mhm. kon du du njëkke boo xam ne nii day xatal ay ay ay soxna yi rakkam ba ñu ba ñu ba ñu quitté loolu lu ama am solo la moom itamit témoignage bu jàpp nañ ci loolu euh, xaaral tuuti ñu xool élément bi euh, dellu siwaat ci plateau bi incha allah waa Rési sama xarit la mais sama doom la euh, ñu bari ci Sénégal ndeysaan dañ may laaj lan ngeen bokk sama doomu mag la pour ñu xamee ko sama doomu sœur la Seyda euh, li ma xam ci moom xam naa doxaj sax ci ay anniversaire rek yooyu waaye dañ ciy tënk rek ndax li olof di wax xam lépp wax lépp sax baaxul tokkoon su boobaa sax mën nañ koo cot donc ci li ñu xam ci moom mooy gannaaw bu ñu xamante ci xamante bu rafet ma di ko seetaan gis ko vraiment mu nekk nit koo xam ne nit ko ma neex la euh, nit koo xam ne vraiment bàyyi nañ ko xel bu baax euh, par la suite lañ ma wax euh, benn ndijaayam boo xam suñu kër la nekkoon naas yal na ko yàlla yërëm mu ne ma ah maam Absa kii de sa mbokk la ndax kii doomu xadisaano la xaa xadisaano xoola ci télé bi nii rek mu ne ko après mu ne ma noonu la demee fa la yàlla jaarale suñu suñu xamante may déglu rajo bi rajo Dunia di ci dugg di participer vraiment Euh, ba relation bi ñu am nga xam ni euh, wax dëgg yàlla relation bu bu bu bu rafet la relation bu dëggu la boo xam ni cofeel ak mbëggeel rek moo ko lal sama diggante ak moom euh, yàlla jaarale ko ci loolu mu nekk nit koo xam ne nag nit ku baax la mu nekk nit ku baax mu nekk nit koo xam ni bëggul bëggul ku mer bëggul ku waaw nekk nit koo xam ne aussi dafay bàyyi xel doomu aadama su ànd ak yow dafa lay bàyyi dafa lay bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu àdduna vraiment nekk koo xam tam liggéey bi muy liggéey mën na ko te yaatu na ci parce que ñu bari dama naa li li leen di avancé loo mooy euh, baax gi ñuy baax ak tolérance bi ñuy am ak yaatal gi ak xajal ci ñëpp loolu dina yóbbu nit fu sori te loolu dafa nekk ci moom am na défaut waaw am na défaut am na défaut boo xam ne xam naa ko ci moom defu bi mooy képp koo xam ne rek jalka jalgati nga àq yàlla yi damay gis ni loolu daf koy daf koy metti ma lay nettal benn affaire boo xam dund naa ko maak moom ñun dañuy toog ba guddi bu na ñuy waxtaan maak moom di envoyante ay message di envoyante ay vidéo ma am benn vidéo bu ma yoroon waa ji daf ci xotti daf ci xotti woon war may lislaam loolu sax ma envoyé ko vidéo bi ñu ngi doon waxtaan di reede ma envoyé envoyé ko vidéo bi ma toog lu yàgg tontuwul bi mu ma tontoo da doon jooy doon jooy ba man finalement affaire daf ma def ay ree parce que ñun ñu ngi doon kaf mais dafa jooy ni ma tata lii lan la tata fan la ñu jëm di jooy ci affaire yi ma gis ni lii vraiment niveau bu rëy la boobu ñu ngi woon ci kaf mais le fait que envoyé ko affaire boobu rek ndeysaan dafa jooy jooy jooy ba vraiment mu nekk yoo xam ni marqué nañu ci moom ak yu baree bari yoo xam ne vraiment boo ko jegee sax nga koy gën a xam ci moom nit ku baax la waaw nit ku bëgg nit la man moom vraiment euh, yàlla moo def sama diggante ak moom waaw am na ay xarit yu bari nag am na ñu ko sopp ñu bari mais sama diggante ak moom tam wax dëgg yàlla leneen la joyeux anniversaire di la ñaanal ak yu gudd gudd yu ànd ak wér nag waaye ànd ak bànneex yi fees del waaye ànd nag bis bu ñuy daje ak suñu soppe bi nga xam ne moo yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gërëm ñu yàlla gërëm ñu loolu laa koy ñaanal ci ñaan yooyu gàtt rek mais li ma ëmb ci sama xol moo gën a yaatu. macha allah allah Seyda Hafsa Fall moog Seydam Seyda Zeynam ñu bokk waar wi waaye mu nekk xaritam euh, am na surprise buy dugg. ay léegi xaw ma ko kan si nii. lii. ah. Ndeye Fatou Sakho. waaye mu noot kii nag. ah ah Ndeye Fatou Sakho. xarit baa ngi ne borom conférence borom conférence bu rëy bi. <laughs> macha allah. merci lii. kii mooy kan ana micro jox ko micro. Ndeye bàkkaar sallallahu ah. alayhi wa sallam ah. dundal dundale eh, Zeynab Fall waa doomu nday faama jànqa man nag maa ngi dem parce que dama filing am daal mu yor sa filing dalay teral Zeynab Faal moom lay woo bàkk naa la gañ naa la jiñ naa la faal ana xeexkatu islaam bi kii moo défendre l'islam fu mu taxaw Zeynab maa ngay jooy Zeynab ma ngay jiiñ Zeynab ma ngay gañ ma ngay bàkk Seydina Muhammad ak boromam mm-hmm. subhanahu wa taala allah kon macha allah macha allah faal macha allah macha allah macha allah. macha allah macha allah euh, euh, euh, yow yaay kan. man la Ndeye Fatou Sakho. Ndeye Fatou Sakho yow lu ci bis bi. Mm, waaw kontaan ci bis bi. ci bis bi ci sama mag ji. Mm-hmm. macha allah di ko souhaiter happy birthday joyeux anniversaire. Mm-hmm. yaa Seyda di la ñaanal gudd fan ak wér. yàlla defal la xéwal defal la sutura defal la jàmm defal la wér defal la kàttan ba nga yeggaleeg sa sago ku baax la macha allah loolu rek laa mën a wax ci moom ku baax la asalaam dañuy déglu dañuy dégg tout le temps Zeynab di wax euh, sama sama rakk sama lépp euh, ban relation ban complicité moo nekk sa digganteeg Zeynab waaw complicité bi sama mag la daal. sama mag la. sama xarit la. sama genn waale la sama lépp la. mooy comme li may wax chaque jour rek moom xam na man xam naa yàlla xam na. waaw. d'accord loolu loolu loolu rëy na am na solo. Uh-huh. moom ñëw naa kii eh, bi am sondeli waaye damay wax na yi am sondeli moom man bu dee bu amul sondel bi laay kii. lay taamu. ñun hmm, bàyyi rek nañu defar gato yi rek man loolu laa bañ cee def sondeli. bàyyi rek ndax ci euh, waa daara ji. ah waaw sondeli buñ ko fayee dafa am leneen lu muy teg. Ah. ci anniversaire ak yëpp. waaw dañ ko dindi waaw dañuy taal sondel bi ba mu jeex ci daara ji. Mhm. waaye buñ ko fay. Ah. kon beneen yoon nañ defar kii bi rek mbañ a am sondeli. mu tàkk ba jeex <laughs> <laughs> bi njëkk ñëw xam naa Lius wax na leen. waaye kontaan nañu jërëjëf moom léppi Zeynab la léppi Zeynab xam nañ fi mu féete Zeynab ak fi ko Zeynab féete moo tax mu ne sama rakk la sama mag la rek tënk ko foofu macha allah su ko defee dañuy jàll rek ci témoignage yi ci waa plateau bi euh, euh, micro bi euh, ñu jox kenn mu présenté wu moom itamit indi ay témoignage am ci borom bis bi Seyda Zeynab Fall madame Sarr bindu moom waaw euh, Samba euh, kii nag moom taarikalla. man de xam naa ne tabaarakallah koy nuyu. waaw macha allah. ñu déglu témoignage bi. maa bàyyi ma sama ñaari bongo rek. maa mhm. waa plateau bi yëpp. Mhm. particulièrement à Ousmane Makhtar. Mhm. ñu lay ziar bu baax. maître Thiam nuyu ñi ma fekk ñi ma àndal ñëpp ci plateau bi macha allah xam naa lu rëy la ci moom parce que yaakaaru ko woon fenn tamit mais dañ ne bis bu bis du tuut borom lay tolloon te lii li ñu li ñu def nii dañ ko sax xeeb ndax bu ñu amoon dem soraanoo woo ñëpp teew dañ koy def macha allah ndax jaraan nañu ko man seydaa yàlla moo def ma bëggal ko sama bopp bi ma koy suivre ci RDV boobu muurooguma su génnee ma naan man femme bi daf ma neex torop di ko suivre à chaque fois ñu may laajte émission bi ban heure lay am ma di ko capté te jëmmam moo taxoon may suivre RDV su ma waxalee yàlla. parce que man daa ba yàlla def su ma muuroo tey yàlla ak moom la. loolu du ma du ma ko du ma ko rus wax. su muuroo tey jii. yàlla ak Zeynab Fall la. ma koy gërëmee bu baax. donte diine yi ci man. ndax mm. samay waajur def nañ ko ci man. Mm. waaye dama dindi woon sama kol sànni. loolu metti woon sama papa lool. su ma jëlaatee ko teg sama bopp jëmmam moo tax te nee naa bu ma ko dindee mhm. yow man xiyaam la dal na yéex di ko ñaanal bu baax Fall loo bëgg yàlla na la ko yàlla defar mhm. loo ragal yàlla boo ko gis ku la xaar yàlla na xàddi yàlla na nga yegg ni yoon yàlla bàyyi laak sa njaboot gi bàyyi laak daara ji bàyyi laak euh, kaaw sàmba ngeen sokkaloo ni asamaan ak suuf bàyyi laak soppe yi macha allah yéene ci soppe yi ëpp na lii bu ñu ñëw bu ñu mënoon a ñëw ñun ñëpp dañ koy def mais yàlla def na ñun rek ñoo mën a ñëw kon ñu ngi lay naan souhait joyeux anniversaire dundal dundal dundal Fall loo dund doyul salaamaaleykum wa rahmatulah nga fàttali tur Ndeye Fana Fall ñu gën maa xam ci jumelle Zeynab. waaw Seexu Zeynab baat boobu laa bëggoon ñu dellu si. waaw am na beneen surprise ñu jàll ci ñan ñooy dugg si noonu mère Thiam ñana waaw man ñii de waa kër gi ñëw nañ waa kër gi ñëw nañ. waa kër gi genn. waa ah li mu doon nag li mu doon ah, waa kër. ah moom waay. ah. indi Oustaz Mouhamed ah waaw moom. amiin amiin taabal ji li ñu waroon jël taabal ju rëy nag. ana micro bi. xaw ko ñaka. Oustaz Mouhamed micro bi ana mu. ah waaw lii de équipe ndénkaane la tabarakallah merci Fatima. Fatima. macha allah ñu ngi ziara. macha allah tegal bi xëccal bi xëccal bi xëccal bi. amiin amiin tabarakallah lii de ay nems la. merci merci jërëjëf. sana xilwa ah macha allah léegi dañuy bàyyi oustaz Mouhamed Diop ya jamila sana xilwa ya jamila sana xilwa ya bi xayr zalaha zalamina walaha zalamina macha allah def répétition balaa wax mère Thiam bu ma ko waxee woon ma sama ñaari coono sama xam rek waaw moo tax waxuñ la ko d'accord d'accord xamee woon ni Bakane ñëw la masis bi kumba faal farakati njar benn faal bu yàq xew bi xew diine la d'accord ah, noppi naa d'accord xew euh, léegi dañuy bàyyi waa équipe ñoo nekk nii dañuy bàyyi kenn rek wax ci seen muy oustaz Mouhamed Diop waaw macha allah oustaz Mouhamed waa lan nga wax ci borom bis bi Seyda Zeynab waa Seyda Zeynab euh, ñu ngi koy li ñuy njëkk a wax moo di ne dañ koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla gën a dëgëral Euh, li muy def yàlla na ko yàlla subhaanahu wa taala gën a mhm. euh, damay wax ci sama tur ak turu waa ndénkaane yëpp bal damay wax ci turu li nga xamante ne mooy kër gi yëpp mhm. di ko wax ni ñu ngi bég di kontaan si sak taxawaay di yàlla subhaanahu wa moo xam di boole mhm. moo ñu booleek yow te boole gi ànd bi amul lenn loo xamante ne ñaaw na ci tout le temps lu rafet rek la gis si moom tout le temps lu baax rek la ñuy jàngee ci moom moom xamul sax ne école la boo xam ne léeg-léeg dafay jaar <laughs> léeg-léeg euh, chaque jour fu ñu tasee ak moom mm-hmm. même buy dox sax ci couloir yi ku mu nuyu rek na muy nuyoo na muy reetaane mhm. xamul ne mu ngay jàngale lu bëree bari mhm. kon eh, tàmbale ko ci kilifa gi mhm. ba ñi nga xamante ne donte kenn tuutiwul ci biir li nga xamante ne moom mooy eh, kër gi ñun ñëpp ñu ngi lay eh, souhaiter joyeux anniversaire di la wax ne yàlla nga dund ay ati ati ati at li ñuy wax naan itti ichti hamidatan karimatan wa mutti shahidatan bi idnillah baada umrin madida xam naa dañoo wax ne suñu yegsee fii nag dañuy jox sama yaayu bopp mu indi li nga xamante ne moom la waa ndénkaane jox soxna Zeyna macha allah kon kon waa ndénkaane ñoom it eh, am na kado bu ñu waajal pour jox ko Seyda Zeyna Fall léegi dañuy jox mère Thiama mu joxe kado bi mère Thiama waaw Ousmane Matar ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la ziar mm-hmm. may sant yàlla bu baax di julli ci Moussa Fall sant sama ñaari waajur di sama sant sama sëriñ ba sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke yaa yàq loolu dafa am ku nekk ci ligne bi baal ma balaa ngaa ñëw di joxe kàddu bi ñu jël ki nekk ci ligne bi soog dellu euh, bu bu ñu jël ko euh, salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu salaamaaleykum kookeekum na ngeen def papa waaw euh, kookumu papa ñu ah, ah, borom daara jàngi macha allah borom këru Seyda Deyna Fall sëñ Samba Sarr mooy woote. mooy mooy premier serviteur. téléviseur mhm. wala. maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax. walaay ñu ngi lay fay Sarr. di leen sargal bu baax a baax. ndeysaan. di leen yëgal ne jigéen ji nga xam ne bi moo toog foofu. Mhm. jigéen la joo xam ne ji moo tax ma xam ne ndekete jigéen ju baax mot naa am. macha allah waaye bu dul woon loolu dinañ ko nettali dinaa ko gëmee noonu rek noppi. Mhm. waaye kon jëf ji duma ko am. Mhm. waaye duma ko amee laa xam ne ndekete jigéen bu baax am na. Mhm. jigéen ju teey am na. jigéen ju tabe am na. jigéen ju bari respect am na. jigéen ju fonk jëkkëram am na. jigéen ju yittewoo ay doomam am na. jigéen jigéen joo xam ne bii lépp lu baax loo wax ci moom rek Ahmed Diop muy muy fa kalimaat yi day jafe pour nga tànn yan kalimaat ngay jël pour nga xam ne bi mooy mbaaxam. est-ce que. jigéen jaa ngi noonu boo xam ne bi lee. mosul mm-hmm. dem fenn. yow kooku soog jigéen mosul dem fenn te tàgguwuma. est su fàttee woon sax ba oto bi daw ba ci yàgg day gaare. Mm-hmm. woote nee ma. Mm-hmm. nga baal ma de dama fàtte dama waroon dem kër bi waaye nag dama dama la ko ba dama la ko fàtte wax ndax damay dem wala damay toog. Mhm. ma ne ko demal. est-ce que. na li nga bëgg ci àddina. yal na la ko yàlla defal. amiin yaa rabbal yal na yàlla sunu borom guddal saw fan. amiin. ndax sa fan yu gudd dafa am njëriñ du man rek. mais àddina bi yëpp xam nañ ne yéen ñi nga xam ne yéen a toog moo xam ngeen ne fanam am na njëriñ. Mhm. ku toppatoo place la muy liggéey. Mhm. daf koy toppatoo. Mhm. bi nga xam ne bii mooy daara ji su ñëwee moom ak xale yi ñoo yem cet ba directrice moom i ndey la xam jërëjëf. damay wax ne lii du lii du lii du tey wax naa ko ci duniya wax naa ko ci ay jotaay yu bëri. déet nag sama bakkee ni ñu fi man may géwélam est-ce que déet sama bakkee ni ngi ci man mm-hmm. man may géwélam est-ce te ndaxte bi ma xam ci moom mm-hmm. te yéen ni ngeen ko xamee jë buy seetee jabaram mm-hmm. nay seetee moom li mu xam te kii rek laa xam man xaw ma keneen ku dul moom est-ce que li ma ko xamee xameewu ma noonu kenn waaye nag ni may xamee noonu la xamee ne ndekete te dina tey da dina Xadija li mu doon def ak yonent ci wàllu tabe ñu ngi koy def ay def na Aïcha li mu doon def ci ci ci wàllu xam-xam mi ngi koy def mm-hmm. lii moo tax ma xam ndekete jigéen bu baax am na mm-hmm. bu baax a jënoon soog yenn mm-hmm. euh, saa yi doo mun a wax sax ndeysaan doxal day seet ndeysaan jërëjëf yi nga soog munoo wax li nga xam ne bi moo boo jël tuuti na ci nga wax baaxam yàlla na gudd fan amin yaa rabbal alamin yàlla na gudd fan yàlla na am wér amin yàlla na yekk amin yaa rabbal alamin amiin njabootam yal na ko jëriñ te mu fekke ko. amiin Sarr. jërëjëf Fall. jërëjëf jërëjëf sa loxo ci kaw. bu fekkee ne jëkkër dong la. nga xam ne na bu yàgg. est-ce que sa àjjana ubbeeku na bu yàgg. est-ce que bu ñu àndoon ba jot foofu. te mu def benn moo war a dugg àjjana dina la ndax ba bu mag la. yow nga dugg ci biir man ma def maak yàlla. macha allah nuyu naa leen yéen ñëpp asalaamaaleykum moom daanaka émission bi mënoon nañ koo tëj sax. Ah, euh, wax dëgg fa jigéen ju nekk tey toog euh, doon nga ñaan wala ngay rêve am témoignage yu mel nii bàyyeekoo ci sa borom kër. Mhm. kon àdduna bi yépp di seetaan nañu xam ne Seyda Dayna mii ñu sopp Seyda Dayna mii nu bëgg Seyda Dayna mii nu safoo Seyda Dayna mii nu wër numéroom Seyda Dayna mii nu bëgg a toog toog moom. Mhm. Euh, mbokkam yaa ngi nii. seedeel nañ ko buñ ko seedaloon mu yem fa dana am lu des mm-hmm. waaye jigéen ju nekk ci biir néegu sëy nekk ku ràññee ku nu xam di star mm-hmm. ni ñuy tuddee baat bi mm-hmm. euh, boroom këram seedeel ko seede yu rëy nii am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi moom itamit ñu dugal ko waaye Samba Sarr jërëjëf yooyu tamit ku baax nga euh, Pape Ousmane salaamaaleykum aleykum salaam salaamaaleykum euh, salaamaaleykum waaleykum waaw ñu ngi lay fay Pa Ousmane. waaw oustaz maa ngi lay ziar bu baax waay. walaay yal na ko yàlla nangu na nga def. non oustaz tey moom mënu ma woon ñàkk bañ a dugg. ndeysaan. waaw tey moom vraiment euh, sama jigéen bi soxna Zeynab. Mm-hmm. waaw dafay. yëkkatil kàddu gi tuuti yëgeel micro bi. waaw ma ne. Mm-hmm. tey mënu ma woon ñàkk bañ a dugg. Mm-hmm. waaw parce que soxna Zeynab dafay kenn. Eh, eh, xam naa ne li may wax nii Mhm. xanaa na nga sori sa euh, téléphone. waaw ñu ñu jël kii soog bi ñëwaat ci Pa Ousmane salaamaaleykum. ah buntu kër gi. Euh, am na ku nekk ci buntu kër gi moom it keneen. Mhm. mère Thiam xoolal ma ko kumu. kuy fëgg kuy fëgg ah nee dafa aw mu dugg day témoigner ci kër gi la nekk. Ah. Euh, kii nag mbokk Zeynab ah, dëgg la ah. duudu la duudu la. duudu la duudu la duudu moom force day dugg moom. waaw duudu la duudu la joxal ma ko micro. duudu la. ah ah kii tuddee na Zeynab doom kii moom tabaarakallah. duudu la euh, yow lu tax nga ne da ngay dugg force. non mënu ñàkk a dugg. waaw vraiment parce que euh, Zeynab dafa nekk koo xam ne. exceptionnellement la ci man taxawel ma la pour ñu waaw. exceptionnellement la ci man. sama sœur la sama maman la sama lépp la. Mhm. waaw vraiment loolu tax. Mhm. mënu ma ñàkk dugg. Mhm. waaw pratiquement dafa nekk koo xam ne ba pare journée bi nekk journée bu exceptionnelle pour man. parce que depuis démb xam nga envoyé naa ko affaire mais daal lu ma gënoon doy daal mooy ñëw taxaw xool ku jàkkaarloo moom vraiment. ne ko siste kontaan si yow yàlla na nga gudd. sàppi la. mu mel ne tuddee nga Zeynab doom te ngeen bokk fu ngeen di liggéey waaw xam nga <laughs> loolu rek mooy li ma wax rek xam nga dafa nekk loo xam lu yàgg la mhm. waaw nekk lu tey daal mhm. kon nag bon mérite naa ko et puis def naa ko mhm. mooy loolu daal waaw ah. ah. yow yow yow baaxoo nekk ci ci eh, feneen waaye kër gaa ngi wàcc di waaye kër gaa ngi wàcc di ah mbay ndaw kër gaa ngi wàcc nag waaye kër gaa ngi wàcc nag keneen dugg fi kër gaa ngi wàcc nag <laughs> moom rek kër gaañ waaj. keneen dugg si na. <laughs> waa nga terminé. waaw loolu daal laa bëggoon. ndeysaan mënu ma woon ñàkk a dugg daal. Ah. vraiment kontaan naa di ko ñaanal nag xam nga bu nekk anniversaire yu bëree bëree bëri. amiin amiin yaa rabbal ñu sante ko gërëm ko. <laughs> ah moom de mu mel ne daal. am na koo xam ne it kenn mënul woon fexe ba indi ko euh, DTV moom. moom dunya rek la toog nit bu ñëw waaye ah, tey moom xaw a Zeynab daal moom moo ko jar daal bàyyi ndaw. moom ñu bëri nag ay at lu man ñaar fukki at dañuy dégg Baye Ndaw Baye Ndaw te mosu ñoo gis Baye Ndaw Baye Ndaw a gi bi bi dunia bi ñuy avant ñuy ubbi rajo dunia waaw benn baas dafa jëloon ñëpp ku nekk nga ñëw pour génn télé mhm. ma ne man moom mos a génn télé est-ce que moom moo tax tey waaw waaw man première fois ma gis Baye Ndaw plateau télé dégg ngeen Samba Sall li mu wax léegi mhm. déggal kii je crois que jaratul ñu ci teg dara. dëgg la kii dèjà waxoon naa ko ñëpp bañ dégg ko sama sœur la. Mhm. sama sëriñ la. Mhm. man aw ma sëriñ mooy sama sëriñ. ndeysaan macha allah. Zeynab sama bureau mooy bureau. Mhm. ba mu ñëwee ba léegi ñi ñëpp xam nañ ko. foofu la ñëw. donc Samba Sarr li mu wax amatul luñ ci teg. ndeysaan kii daal féete woon naa ko féete woon naa ko. ndeysaan di leen gërëm yéen ñëpp. même ci wàllu liggéey bi ak rajo bi rajo bi. dunia rajo bi xam ngeen kii li ñuy wax atam bëriwul. ba mu ñëwee rajo dunia yow xam fekk fekk nga lépp amul amul ma gisuma daal defoom fa fii ci rajo fii ci rajo bi. gisuma ko. man yow gis nga ma. toujours su ma amee problème fii. Zeynab mooy ñëw. sama gars yi chaque jour ma jàppante kenn. Zeynab mooy ñëw génn ma ci. moom may conseillé. moo may dalal. bu dul woon moom. xam naa ne instant bi leneen la ñuy wax. mais daal di ko mat bu baax. naan ko. dundal dundal ba doyal. ndeysaan Fall jërëjëf jërëjëf. jërëjëf kontaan naa ci yéen tamit <laughs> boo gisee waa DTV DTV ñoo mujj ñëw fii ci rajo bi xam ngeen DTV. Mm-hmm. RDV musique la woon. Mm-hmm. bi fi grand grand bi génnee àdduna. Mm-hmm. le Jupiter ñëw ñu changé ko def ko DTV. ñii ñoo mujj ñëw fii mais ñoom dèjà li ñu mën a wax si Zeynab rek. xëy na. du la caam a baax. tamit yéen ñi nga xam ne yéen a fi mujj ñëw. yéen a ngi jàng. ndeysaan te jàng bi mokk na. alhamdulilah merci beaucoup <laughs> jërëjëf jaa ngeen jëf. jërëjëf Baye Ndaw lii moom euh, beneen surprise la. dëgg la euh, defe naa ñiy toog nii ñëpp di déglu rajo bi. Mhm. turu Baye Ndaw moom toog na ci seen ndopp. Mhm. <laughs> moom mooy technicien bi. liggéey rek lay def rajo bi programme bi macha allah. waaye tey première fois ñu am bàyyi ndaw toog ci plateau di wax te Seyda Zeyna moo ko jar. loolu doyoon na sëkk pour pour élément. Mhm. Euh, ñu déglu benn audio euh, am beneen gan gu mag nag. beneen surprise gan gu mag gu ñuy xaar bu dugg si eh, studio bi. Ah, waaye ñu déglu benn audio témoignage il faut nga xaar tuuti. ñu joxe li benn audio. Ousama Tane dañuy joxe li neneen. ñu déglu. doon témoin ci euh, Soxna Zeyna. mu nekk koo xamante ni ku neex a Mm, ku neex a témoin la ndax ku bëri lu muy def lu baax la ku bëri lu muy def lu baax day neex a témoin te euh, man personnellement man sama témoignage lu may dund ak moom mu nekk ni ko xamante ni euh, saa yu ma jaaxlee moom lay woo ginnaaw yàlla problème bu ma am seen sama xel mi ci seen bu rek lay def te saa yu mu ko ko waxee du ci teg benn baat ni ma ko ko waxee noonu la ma koy defee ci ak ni ma ko bëggee léeg day def ba def loo xam ne sax man dafay dafay dafay weesu sama njort te nii mu ma koy defalee noonu laa xamee ni noonu la koy defalee ay jaamu yàlla yu baree baree baree bare man xam naa ni man damay man dama ko yërëm parce que moom am na lu bëri loo xam ne daf koy def mais charge dafa bari ba pare mu tourné waat di defaat ay yeneen action yoo xamante ni man dama naan seen mi moom euh, lii muy def lépp moom fan la koy sax jëlee wax dëgg yàlla loxo bi gaaw xool bi oyof mu mën a yërëm euh, nit ku baax bëgg mbokk trop oyof bëgg xam-xam di gëstu ba pare di jëriñ ay nit ba pare neex a magoo lool it neex mbokkoo foo dem boo nee man mii am na moom dalay dimbali da lay dimbali te du ko yëg parce que da nekk ci ay nit bëgg fa dara ñu xam ne yow mii kii danga ngaa bokk moom rek say mbir lépp day daal di yomb nag foofu te moom ma nga fa mu nekk xëy na du su sax yëg daal ak yeneen ak yeneen bu ñu ko doon wax fii ba suba du jeex ñu koy ñaanal yàlla tamit euh, yàlla guddal fanam mu dund ba caatu awa sëy ba am ca njaboot gu bare bare bare bare bare bare bare mu toog fi ba boobu euh, euh, beneen surprise euh, kooku fereeram na bu mbokkal ndey ak baay di maxtaar nekk yëppam ah keneen keneen na mama xadi saa toogal ne maman yaayu Seyda jaboot ju mel ni santal ndeysaan santal ya rab yaay ni ñu mel tey yow la duñu fàtte keroog hôpital ba guddi gu metti googa ndeysaan mënuñ la fay loola tey le sabakan ngir ñun lu metti metti ngay muñ coono yi law yaay dooxul sa jëf yi tay allah ah borom kër gi nag dikk na ci may wax naan dara du Zeynab lépp mooma muy mama Khady Sanoxo yaayu Seyda Zeynab Fall a nii ñëw toog dend ak doomam mama Khady Sanoxo a ah, sa doom a ngi nii tey sa bis bi lan nga ci wax. waaw damay sant yàlla rek subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. di feeñal nag sama kontaante ak sama mbégte. Mm-hmm. ci bisam bii nga xam ne. Euh, yàlla yeggale na ko fi indi mhm. damay ñaan yàlla nag mu weesu la ko fi. amiin bu wax ci sa doom. damay wax sama doom. Mhm. Eh, wala fi dañuy wax bànneexu doom ndey ko mën a fecc ba ma ko sonnee woon. Zeynab bu kuy wax ci moom yaakaar naa man lay dimbali. ndax Zeynab li mu yàgg ak man ci kër. magam yàggu koog man rakkam jee yàggu man. ndax moom magam dafa teel a dem këram. mu des ak man ci kër gi nekk ak ñun nag yor nu maag papaam euh, di daw nag ci sunuy waaw comme ni ñu koy waxee rek di nu dawal safa ak marwa am ju euh, kontaan lool ci moom euh, di ko ñaanal ndax Zeynabu kenn mënu la ne bu gis naa ko mu mer xanaa li kiy wax xotti woon may islaam waaye Zeynabu keroog ba mu gën a def lu ko naqari keroog gën a rey xamul mer xamul mer am na yar am na teggin am na sutura xam na palaasu mag ma di ko fa mu di ko fa teg rawatina nag ay way juróom way juróom bu góor maa ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko fa suuf seddee yàlla na xeppee àjjan ndax daf koo gërëm moom itam ba mu laataa dem te man ñii fi des nag wax dëgg yàlla même bu ma junj dooy na borom xel même bu ma waxul sax wax naa. Hmm. ndax kontaan ci moom. Hmm. Euh, bégal gu may bégal saa su ne bëggul dara lu ma naqare. Hmm. Zeynabu bëggul lu ma naqare bëggul moom daal yaa xam moom de ko wax jàmm rek. ci kanamam waaw day def ci man. jàmm. bul wax ci man jàmm bu keneen ku wax leneen bul jàmm ci man ma di koy ñaanal yàlla nag mm-hmm. euh, daaraam bi mu yor yàlla na koy yàlla def muy daara daara daara lu dul jeex d'accord danañ danañ ñëwaat ak yow waxtu wi li ci des bariwul. waaw waaye il faut que ma ñaanal waa euh, Ndenkaan. waaw waaw ci loolu ngay jeexalee. dañu meer Thiama dafa am kàddu yu mu war a wax. ci benn minute nga tënk ko. am na tamit lu waa waaye balaa meer Thiama nañ jox Liwis nga xam ne yow. yaay bu ma jox minute de lu ma neex laay def. bu fi nekk nag ay ñaari minute. njëkk a wax bu Liwis waxee yow lu la neex nga def. waaw ah, kañ bàyyi waaw looy dëgg de. ci nga dëkk sax ci def ah, lu neex nañ nga dëkk. xanaa tey da eh, koy gën a yokk. dama koy gën a yokk. amiin ana Mansour. dangaa baax man personnellement damay wax personnellement danga ma ji ngor danga ma ji teraanga soxna Zeynab conseiller nga ma lu nit xamul ak lu nga ma lu ne nga may wax ci lu baax lu ma nar a def. sëy bi su ma gisee yow nga ne ma Louise du nii jàpp nga si sama sëy bu baax a baax baax baax. jàppale nga ma bu baax jàppale ma guddi jàppale nga ma bëccëg yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla lafal cat yàlla boo gis loo ragal yow jàmm rek ngay am ndax lu baax rek nga jinit yi lu baax rek ngay def ku lay xaar ci lu bon yàlla bu mu la ci mës a fekk yàlla na la yàlla defal jàmm man su ma la ñaanalee sax xaw ma lu mu lay ñaanal ndaxte dangaa baax yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm jërëjëf macha allah waxee na xol ku dégg xam ne li mu la ko tibbee uh-huh. uh, nag uh, ñu bàyyi laa kàddu gi nga def lu la neex. Ah, kañ bàyyi loolu a def la neex gi rek. nga tënk ko. fun naa sax tey defe naa dama ne. waaw dañuy sant yàlla bu baax julli ci yonent bi. ñu sant suñu ñaari waajur. nee naa doom ju baax mooy bénéfice. dañoo ci turu waa ndénkaane rek. waaye damaa part man personnel man caam. damay faral di wax man du ma ngénte ku wasul du ma wax lu ma xamul ci nit. man xaw ma ko vingt ans de. dama toog sama kër yi seetaan RDV di ko gis. maa man femme bi dama koo sopp dinaa ko dem seeti sax fa muy liggéey takkanteeg moom ndey dikkee ba si yàgg may duma dem sax da nga fay dem vigile naan la xaar kook defal te kon damay xeex far yàlla def ñu boole ñu nag place ñuy liggéey man ne dama doon ñaan yàlla defal na ma ko mu am ngor lool baax ma ne ko mesa bigé ko ma faal faraxati njalbeen faal juddu bi rafet na ndax Cheikh Ibrahima sama maam rek doy na baax moon ngaa toog afaama ah, ñu lay ziar waaye da nga laf lépp ni man Seydina Mouhamed rek laa bëgg su may tagg nga ne ma caama dee ma tagg ci Seydina Mouhamed ma kooku moo doo màkk def ni waaye man man Cheikh Ibra laa xam. foofu laa lay wax. mère Thiam naam. waa waa kër gi nag ñëppay fippu kenn ku nekk dañ ñëw waaye escaf man la lan. man la dañ ma may maa léegi nag. tey ñun ñoo xew la waa biir waa escaf nañ xaar ñoo tey xewle Ousseynou Matar. ku dagg sama wax ak ku nangu sama jëkkër laay bañ ndax nag kuy wax dama lay may sa temps buñ toogee nag bés bii am man ak Seynabou Fall ñuy toog di lundi aujourd'hui ak yaa ak Louise mi ak yow nga ñu joxe suñu teraanga dañuy maytu xanaa yees yes en femme kon ah, day jeex su ma ko yëgoon noonu nii def ku nekk li nga xam dama fi indi ñaari cool indi géwël yi ñu lay tagg te kenn duma tey yàlla nga dund loo fi gën a yàgg muy gën a nekk sa dund gi am na njëriñ ñoom faama ñoom méyte régi bi yëpp ñu boole defal la nii takka a jaaru or ndax yow or nga bëgg ndax sàmba li ngeen bete bete koy li nga naa pare nga toog xam ku ñu jox la jaaru or ak sant ak gërëm ci sa kanam yi mbokk mu ngi nii ndax boo nekkoon ci kër gi di ruutale sa yaay ji kat ko mu muñ tool ni ñëpp am fulla defal la ay coquette ndax dangaa bëgg lu riche bëgg ay daal bëgg lu baax a ah, faama yow nag jànqaa nga bëgg seex te yow ñun ay bokk lan xamante nan nee naa lu nu ngénte ko wasulu ñëpp baax nga ànd ak oustaz Mouhamed Diop mi nag ak Moussa ngay didi woon ci diine man rakkaa ji woon na daaw ma julli a ma jàpp waaye ma la xamee laa commencé di li xaam am sama aaya taqaadu wa taqaabu am samay aaya lii la looloo neex euh, euh, keneen Maxtaar Soare Maxtaar Soare yàgg ak Seyda Zeynab am di euh, nekk ci rajo bi di def ëttu góor ñi ak yeneen émission place bi alfa nekkoon yàlla ko yàlla yërëm cey bu fekkee woon bis bi ak a ciy mën a wax Alpha Camara yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko akay mën a wax ci Zeynab waaye nag lu mu ci mën a wax lu mu ci war a wax maxtaar soirée ngi maxtaar soirée Seyda Zeynab a ngoog waaw jërëjëf euh, euh, Seydi Maxtaar ñu ngi leen nuyu yéen di kontal si yéen di ñaan yàlla daje bi yàlla bu doon sunu ma jum daje yàlla ñu ko daje at yu bare bare bare bare bare euh, yaay jii xam nga ñu war a wax bu ñu waxee ba pare wax day ndax yaayam wax na borom këram wax na waaye dafa am loo xam ne man moom ma dal tey demi noonu wax man damay soppi rek ñaanal ko moom ndax nee naa Seyda Seyna bis bi nga koy tegee bët ak bis bi nga ko tegul bët bokkuñ bis bi nga ko tegee bët moo gën bis bi nga ko gisul man loolu laa wax man ci man ñu nañu ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ndax ab tab la yaaram la yàlla yàlla guddal fanam waaye damay wàcc suuf groupe bu bare karma moo ma tax a muy waay escaf ñu suuf techniciens yi Md Moustapha ñoom Md Moustapha dafa ma jiital ba ci kaw ni ma yaa nooy waxal ndax bisu sëy Seynab bii Seynab képp ku nekk ci euh, rajo bi rek seq naa yow teraanga. Mhm. ñoom si daatak euh, euh, aaw. Mhm. équipe yi yëpp suuf rek. Mhm. ñu àndandoo daja doon yéegal ci kanamu way juróom ci kanamu ay soppeem nga gërëmal nu Seyda Seynab. bon na Seynab na nga yëg ni rajo bi yëpp nag li commencé ci suuf ba ci kaw soo meloon nee na lii du am ndax yàgg nga fekk ñoom te lu yàgg dëgg la. te lu rafet rek neex nettali. boo ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan escaf gépp kontaan nañu daal ñu ngi lay ñaanal techniciens yi li commencé suuf ba ci kaw ñëpp ngi gërëm di sant d'accord jërëjëf xam naa ne logique moom mi ngi ñëw bu ñëwee euh, ñu jël Pape ci téléphone bi euh, am na benn technicien bu taxaw joor euh, Pape Ousmane Oustaz Makhtar waa kay léegi leer na macha allah maa ngi lay ziar mënu ma woon ñàkk ba ñu dugg wallaay jërëjëf bisimilah waaw parce que soxna soosu ñuy seede depuis suba ak léegi mm-hmm. Euh, bi ma xamante maam yàggul ci euh, groupe Excaf la ñu xamante mhm. mais wax dëgg neex yàlla tout tënk xam naa ne temps bi dafa gàtt jigéen la joo xamante ne war na doon modèle pour àddina bi yëpp li tax ma wax ko mooy dañu toll ci jamono joo xamante ne Oustaz Makhtar yaa gën a xam mhm. nit ñi tey euh, te ñun ñun ñun en tant que média dañ ci am responsabilité chaque fois dama ko wax mhm. mooy ni li ñu gën a intéressé mooy di promouvoir ay contre valeurs te boo xoolee suñu chaîne de télévision yi guddeeg bëccëg suba ngoon bi gis ay nit ñoo xamante ne ñu ngi leen di ñu ngi leen di publicité di leen def royukaay te alors que ñii royukaay dëgg mooy ñu mel ni comme soxna Zeynab mii wane na ko ci taxawaayam wane na ko ci jikkoom te tey li mu am nii ci groupe Excaf ñëpp moom lañ koy seedal man mun naa la wax ay junni nit yoo xam saa yu ma daje ñoom dinañ ma ne soxna Zeynab gërëmal ma ko ziyaaral ma ko ndax taxawaayam ndax ñu mel royukaay la ci ñun. macha allah koy gërëm di ko sant moom soxna Zeynab li ma a wax yëpp dafa bëri dina uh-huh. jàpp ñu xamante mais daal li ma koy seedal mooy. Uh-huh. royukaay la. Uh-huh. te ñu koy ñaan fi mu nekk na ko gën a saxal na ko continuer. amiin amiin yaa rabbi ginaaw jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulah moom euh, xam na kër geeg ni muy tëddeeg waxtu wi jeex joor euh, looy wax ci yow yow tamit fipp nga daw ñëw looy wax ci Seyda Zeynab asalaamaaleykum muy nuyu ñëpp ñi toog ci plateau bi mhm. leen di wax ne dalal ngeen ku jara dalal ku baax ku noppi yor jikkoy sëñ Seex Mbàkke mhm. boole noppi ak joxe mhm. Zeyna kenn xamul lu ko neex kenn xamul lu ko naqari Zeyna du changé keroog bi ma fi njëkkee ñëw muy 2002 daf ma romb ci buntu bi ñetti yoon ba mu yàgg mu wàññeeku ñëw na ma soxna si koy seet ma ne ko man de ku ñuy wax Edouard laay seet benn baas laa bëgg a gis. mu dem wàññeekuwaat ñëw yëkkati 1000 francs jox ma ne ma dama jënd añ fii ci ginnaaw nga añ ba pare ndékki nga ma ne ko déedéet mu ne ma demal añ ba pare ma añ ñëwaat mu lijjanti ba ma gis Edouard. Mm-hmm. Edouard moom lijjanti ma teg ma ci loxo Benji ba ma gis benn baas tey. macha allah kon Zeyna moo ma yaatal man. Mhm. ba ma am tey 17 ans biir Escaf. macha allah di ko sant di ko gërëm. tege ci ñu may maye. ma ne ko yow laa ndeyale sama bopp. Hmm. Zeyna ñëw woo sama mag bu jigéen yëkkati lu bari teg ci loxoom ni ko bu ko kenn yéeg daw ñibbi. d'accord kon aw ma fayam. d'accord jërëjëf ku ko xaar yàlla na xàdd. amiin Dior amiin. na ko yàlla defal jàmm. defal ko ay xéewal boole kook borom këram. lépp lu mu yóotu lu ne yàlla na ci jot. jigéen ju baax la royukaay la. yaay dëgg la yaay jiñ koy woowee. Hmm. kenn triché wu ko yaay la ndax dafa wane yoon bi. jërëjëf sant naa leen bu baax jërëjëf joor jërëjëf moom i technicien la ñu bari nañu dégg joor mi ci technique bi mu ngi nii macha allah Tidiane mi ngi ci téléphone bi Tidiane Baawo salaamaaleykum. waa Tidiane. Matar Baabo bisimilah Tidiane. mbaa ngi ñu ngi sant bu baax Tidiane. ah Matar bisimilah ci tënk lan ngay wax ci Seyda Zeynab. musuma munu munuma bañ a dugg sama bésu jarbaat bii. wax mhm. dëgg fa nag yàlla mhm. donte soxna soxna si démb dafa dafa dafa dafa am bébé. waaye tey il faut il faut ma dugg sama bésu yaay bi yaay yaay yaay yàlla na yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi amiin moom it tuddee na Seyda Zeynab doom ñu bokk fu ñuy liggéey mosuma sax wax ndax xol xol bu sedd sa sa turandoo ngi nii toog di la xool. di di di bay bay di la xool ngay jooy muy jooy. wallahi azim ngay jooy muy jooy soxna si ñëpp a ngi ni kër gi ñëpp a ngi jooy. parce que alquraanu karim billaahi wallahi yow dañuy bàyyi ak yàlla rek dañuy bàyyi ak yàlla rek man du ma du ma sori ci wax ji mhm. ndax seede gi ñëpp wax nañ ko ku maanaam yaay ku ci nekk ci ci ci doomu aadama yi am na lu mu sekk ak yow am na teraanga ju mu ji mhm. am na fu mu jaar ak yow loo xamante ne ku ci nekk boo ko nettaloon fii la ñuy fanaan mataar dëgg la dëgg la yaay yow yaa xam li nga bëgg sa xol yàlla na ko yàlla amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf yàlla yàlla bàyyi sa waajur wu jigéen bi mu gudd fan lool. papa nag tamit sàmb yàlla ko fi yàlla bàyyi. amiin yàlla gudd sa sa fan sa yéene yàlla yàlla mottali yéene yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. amiin yàlla amiin man dafa tooy jërëjëf jërëjëf Tidiane jërëjëf amal jàmm rek yaay amal jàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf amal jàmm kenn desul kenn desul Tidiane ñu sant ko bu baax gërëm ko moom it euh, moo ak ñoo bokk fu ñuy liggéeye mu yëkkati doom moom it tuddee ko ko ni ko ñeneen defee ci biir kër gi lépp di wane mbaaxuk Zeynab ah Zeynab Fall yow la ñuy jox kàddu gi. bis baa ngi noonu. li wala fi wax ah. damaa caatlu kon d' accord d' accord man laay liggéey waaye ba ma utal liggéey ba leen liggéey ca rajo ba. waaw d' may def ëtt bi. d' accord loolooy ñàkk ñaan. Seyda Zeynab. boobu boo ah, neexoon ma kuy war bis du tuut borom lay tollool. Euh, xew wi xew aadala la. muy anniversaire. Euh, waaye nag occasion la buñ mën a profité pour nit ki. pour wax ci moom yu baax yi nga xam ne yàlla moo nu digal wala taktumu shahada bu leen nëbbu seede ne wa man yaktumha fa innahu asimun qalba ku nëbbu seede am nga bàkkaar boo xam ne day sax ndax bàkkaaru xol la dégg nga li say am di jàmm wax ñi nga nekkal ci kër gi say soppe yaa ngi ni déplacé wu dégg nga liñ wax dégg nga li sa borom kër wax euh, sëriñ sàmba saar sa yaay ngi nii di mag déplacé wu ngir yow Euh, li mu wax li mu seede lan ngay wax Sayda Zeynab waaw alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimu saalihaat mm-hmm. sant yàlla delloo ko njukkal li nga njëkk a wax rek sama at am na lu ci wàññeeku mais mm-hmm. dama war a def évaluation xool at bi nga xam ni génn naa ko li ma ci def ci ay rëcc-rëcc ma jéggalu li ci baax ma gën koo continuer li ci des nag sama waajur bu jigéen bi ñaanal ko yàlla ndax taxawaay bi nga xam ne daf ko taxaw li may faral di wax sam papa dafa nekkoon ku lewet bëggul lu naqari doomam bu du woon ak moom fu ñu egsi tey mën nañ ne duñu fi egsi ndax mu takk sërëm ba pare sam papa teel a feebar man chaque jour dama koy wax samay élève man benn yëre laa amoon ak benn kol bu guddi jotee mu fóot ko weer ko ndax sam papa dafa teel a feebar mu jàngal ñu muñ jàngal ñu doylu moo tax man xale yi dañ may wax yaay danga nga yore daara sa buntu kër dañ koy rang ku ñëw rek nga jox ko man leen ku jaarul ci ci tumuranke doo ko xam lu ma yor bu nit ñëwee dama ko koy jox ndax dama cee jaar moo tax musuma yónni ma demal lebal ma wala mu ne demal ñaanal ma ba pare amul ku koy dénk suturaam du du lu ko téel ma doon ko ci moom moom dama koy ñaanal su wax ci moom du ma mën a eggale mm-hmm. sama moom tamit ku nekk xam na ni mm-hmm. sama waa kër a ngi nii toog mm-hmm. man damay wax ni moom bu ma sëyul woon ak moom su ma nekkee ak keneen gëw ma ni dinaa mën a nekk ak moom jigéenu naar laa sama jëkkër mooy def lépp mu nekk ku baax koo xam ne yàlla laa koy bàyyil mm-hmm. yéen ñu ma bokkal service bi ma leen di ñaanal yàlla Oustaz Makhtar ci yow lay commencé lii man dama tiit bi am ami dugg see dama tiit ndax man xalaatuma lii mm-hmm. ñoom may te waa régie mm-hmm. ñoom dañuy wax man damay wax ni mbaax gi ci yéen ñëpp la nekk yéen kenn gënu leen a baax yéen yéen a ma bëgg ku taseeg man jox ma cër ñi ma nekkal ñëpp waa ndénkaane waa Excaf Baye Ndaw tey laa ko mos a gis mu wax ci télé. sama sama sama nit la. Mm. maa ngi moom macha allah mu nekk ku baax dima jàppale ci rajo bi. Mm. ñu ànd di liggéey ndax benn baas daf ñoo jiwoon ngor loolu moo tax. Mm. damay wax ni ñëpp a ngi seetaan su ma jógee ci télé bi géew jóge ci rajo Dunia kenn du ma dégg ci beneen télé wala beneen rajo. Mm-hmm. Jupiter mun na ko seede. Mm-hmm. ndax bugaan keroog ba may wax ni yàgg naa la bëgg a débouché li ma ko tontu. Mm-hmm. dama ne ko man rajo Dunia mooy sama kër. ndax man ngor rek laa xam ndax ci lañ ma yar. ku ma gisatul ci télé bii. déggoo ma ci rajo Dunia doo ma dégg ci beneen rajo wala beneen télé. damaa jaay fii jënd fi bàmmeel loolu moom moo tax. ma leen di gërëm di leen ñaanal soppe yi Fama Janka. ndey Rama sama rek Aïcha Fall ñi teew ñëpp maa jumel ndey Faana. sama cousine bi moo doon way kii papaam. sama moo topp ci papaam. waa Ndénkaane mm. ah ñoom Oustaz Mouhamed Diop lay fay Fatima mm. Fama Mayte mm. yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal Fama ah, yal leen yàlla fay ñaan yàlla defal leen jàmm Matar Souare sama nijaay la ju baax waaw Matar Souare nekk ku baax ñëpp a baax joor waaw maa ngi gërëm ñëpp nday Fatou Sakho li ma sol moom lii ma sol nii su may wàññi li ma jox moom sama armoire su ma ko ci génnee defe naa bu ko neexoon mu ne am naa ko mm-hmm. mais moom yàlla laa koy bàyyal Fama jànq fu ma jëm ñooy ànd man ak moom